téléspectateurs yu Equivox TV ñu ngi amaat mbégte bokkaat ak yéen seen jotaay bii di ganu Equivox tey nag ñuy dalal koo xamante ni borom xam-xam la Sénégal yëpp daanaka mën nañ ni xam nañu ki nga xamante ni moo di Amadou Tidiane Wane mu fi nekkoon euh, jëwriñ bu ñu dénkoon wàllum aada cosaan fii ci Sénégal ancien ministre de la culture tey nag moom la dalal ci suñu jotaay waxtaan wi ngir waxtaan ak moom tolluwaayu réew mi ak surtout wàllum actualité ñu bàyyi ko mu nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan jamono ji monsieur le ministre ngi lay nuyu di am kontaan dalal la ci suñu kër gi. waaw maa ngi lay fay euh, sëriñ Mohamed di nuyu euh, waa chaîne bi yëpp mm-hmm. di leen ñaanal tawféex di ñaan yàlla Euh, yàlla defal leen ci lu kawe seen jot. amin amin incha allah ñu am mbégte dalal ko tey ci wàllu kër gi nar waxtaan ak moom fii réew mi toll fi ñuy tàmbalee waxtaan wi monsieur le ministre moo di euh, élection locale yi gis nañ ni fan yi yëpp euh, ñu ngi koy waxtaanee ndax dañ ko jàppoon dàq ko dàqaat ko dàqatiku ba ñu ngi njort sax ni xëy na 2022 lañ ko ajandi boo doon analyser la situation politique bu Sénégal rawatina report élection locale yi une benn nekkaat beneen énième report lan lay nekk tey. loolu jàngat bi moom du jarul xam-xam bu bari jarul tam wax ju bëri euh, askan wi mooy joxe kàddoom askan wi mooy fal askan wi mooy folli askan wi saa yu falee ay at ak ay fan lay fal at yooyu ak fan yooyu su jeexee dañu war a delloo askan wi kàddu gi li dul yoon mooy ñi nga xam ne ñii askan wee leen fal jël ci seen coobare bopp ak seeni pexe ay yoon yoo xam ni yii dañuy jël la leen askan bi faloon ñu yokk ko loolu bokkul ci mandute te loolu day yàq réew ndax te réew li koy doxal mooy kóolute kóolute bu nit ñi am ci seen i institution kóolute bi nit ñi am ci nit ñi ñu jox seen kàddu kóolute googu su demee ba jeex loolu mooy indi situation de crise confiance amatul kenn wóolutul kenn ku def dara mbaa nga wax dara ñaaw njort topp la loolu nag mooy li nga xam ne lii mooy li gën a euh, euh, jaaxal nit ñi ci mandat euh, élus locaux yi nga xam ni waroon na jeex bu yàgg léegi ñu tegaat ci ñaari at yoo xam ne ñi teguñu ko ci li leen askan bi joxoon woowu daañu fa taxaw ndax euh, yàlla dogal na tamit borom xam-xam nga dangay bind ay téere mm-hmm. nekkoon fi ministre maanaam pouvoir xam nga naka lay doxee mm-hmm. fan yi boo gisee climat social bi Sénégal mm-hmm. tant ki nekk koo xam ne danga koy analyser distance bi nga ci war a am xool yëf yi Sénégal noo ko jàngatee fan yi euh, Sénégal bi nga ko jàngatee gën na sore fan yi rek Sénégal depuis indépendance euh, maanaam depuis le 17 décembre 1962 bi diggante sengoor ak président Mamadou Dia tase ak pexe ya laloon ak euh, ndëng-dëng yi nga xam ni ña ko fekke woon def nañ ko pour nguur àdduna moo indi Sénégal ba fii booba ba tey fen ak dëgg ñooy bëre fi mu nekk nii nag fen moo jekku dëgg fen moo jekku dëgg ci réew mi nga xam ni dañu ne woon bi ñu amee indépendance dañuy dummooyu tubaab yi ak seeni pexe jéem a moom sunu bopp moom nga naw sa bopp naw sa histoire naw sa xam-xam naw sa caada loolu moo ñu topp ba tey jii même li ñuy wax ci réseau sociaux yi li nga ciy gis moo di dootuñu ay nit mais ay nitóor maanaam nitóor moo di euh, xamatoo yaay kan gis nga Afrique moo jur àdduna Cheikh bind na ko fësal na ko yeneen borom yi xam-xam bind nañ ko fësal ko nit ki njëkk a wàcc maam aadama bi njëkk a wàcc nit ku ñuul la loolu neex naa dégg fi mu ne nii ndax ci gis nañ fi nit ku ñuul nekkaat ku weex pour jël ki gën a siiw Michael Jackson. Mhm. mais gisagoo fi nit ku weex nekkaat ku ñuul. Mhm. kon mhm. yàlla wone na ne nit ku ñuul moo meññ lépp luy dox ci kaw àdduna naka lañu ñu mën a sàgganee ba teg ci ay siècle ñu dellu ñuul nekk nag ñi yelwaan ci àdduna kenn weguñu kenn faalewuñu loolu déjà ci àdduna loolu moo fi xew suñu réew yii nag yu ndaw yii nga xam ni bii wóor nañu wóor yàlla ne seize millions d'habitants mënuñu développé wu jamais dañuy naxante rek dañuy naxante rek rêve panafricain bi xale yëpp am tey maanaam réewu Afrique yi booloo suñ ko deful du ñu dem fen huit états UEMOA yii nga xam ni bi ñoom ñoo bokk franc CFA suñu booloo woon nekk benn réew sax mu tane mais bopp réew boo ci gis rek am na benn waay bu fa toog di nguuru te du buur ndax mënalul boppam dara lépp lu muy def foog mu tàggu ci France su ci tàggul France foog mu tàggu beneen réew bu dul France ndaxte deux cent un mille kilomètres carrés yi di Sénégal seize millions d'habitants munoo peser ci àdduna bi ci ay réew yoo xam ni yii ay 60 millions d' habitants dañu am 200 millions d' habitants comme États-Unis wala lu mel noonu Chine 2 milliards yow nga bëgg a def la sa budget réew moom ak budget benn université américaine moo tolloo budget Sénégal université américaine te du ñu gën a mat yi de yi yememaay budget Sénégal ñoom ñoo ko ëpp. dara problème sérieux li am te am moo di. Euh, bi ñu amee indépendance ñun commencé woon nañu tabax dara moo di fédération du Mali. Mhm. Euh, daanaka daanaka juróomi réew la woon mhm. au départ mhm. euh, mais pexe noon yi fexe ba teqaliñu ñu ba ñu mujj nekk ñaari réew ñun ak Mali ñu tuddee ko fédération du Mali doxuñu sax ñaari at pexem noonu yi teqali ñu ak Mali. Mhm. te nga xam ni ñun ak Mali benn peuple la. Mhm. ñun ak Mali benn peuple la ñun ak Mauritanie sauf li ci xees benn peuple la mhm. te ñu waroon am vision du développement boo xam ne dafay ànd ak vision développement humain parce que développement du rekk lekk ak naan. développement spirituel culturel ak intellectuel dafa am. kon li xew li xew tey la cause yi encore boo plus profonde. cause bi gën a sori dama la bëgg a wax ne cause bi fa mu nasoo ba ñu toll ci jamono joo xam ne bii ñun ñii suñu xoolante ci suñu biir kenn xàmmewul sa moroom lu tax parce que doo nit ku ñuul doo tubaab doo chinois doo dara africain tey amul héritage culturel couleur bi rek la yor te couleur bi àdduna bi moo ko xeeb. kon processus acculturation bu ñu doon wax fi mu ne nii lan. ma ngoog processus acculturation bi nga xam ni mooy projet colonial depuis le départ. est-ce que ñoom dañu ne woon mission civilisatrice. mission civilisatrice moo di futti ñu ci li ñu doon def ñu ñoom li ñu doon mais comme mënuñoo doon li ñu doon ñoom. Mm-hmm. da ngay nekk ci digg bi moo di li Cheikh Hamidou Kane wax ci davant dans l'aventure ambiguë une nature étrange mm-hmm. en détresse de n'être pas deux c'est-à-dire da di koo xam ni kii yaa ngi ci diggu mbedd mi xamoo nii ngay jaar xamoo nii ngay jaar Nietzsche neewoon na jaam ak maître yenn saa yi maître bi yeewi jaam bi jaam bi taxaw ci diggu tali bi du xam ndax day dem wala day toppaat maître bi. day ñàkk repère. fa la ñu toll parce que dañu dañu dañu dañu nawul sunu bopp nawuñu li ñu doon et pourtant sunu histoire donte ne euh, daan ñu mag ñi dañu xeex ñoom. effectivement ñoom dañu xeex. effectivement histoire u Afrique soo ko seetee ma ma dellu rek ci histoire u Sénégal. histoire u Sénégal mag ñi dañu dañu xeex tuur seen deret su ñu gañee leen loolu ñu gañee la aayul li bon mooy bañ a xeex. a xeex effectivement. ñu ñu gañee la aayul nga dem làmb ñu daan la loolu aayul ragal a bañ a dem ca làmb loolu mooy li xew te ñun tey chef d'état africain yi ngay gis. kenn ci ñoom amul dimension sax bind loo xam ni lii am na njëriñ pour réewam am na njëriñ pour askanam ñoom ñoom ñu ngi ci ay plan plan nii plan la plan lii maanaam dañ leen yilif ba léegi weesu nañu leen yilif dañ leen noot te waxoo wolof waxoon na ni ku ñuy noot di noot te sa ginnaaw neex ci ka ca dëju soo fudduwul yow moom du si jóg mukk ñun ñoo bàyyi sunu loxo tubaab yi ñoom ñu ngi ci seen rôle am nañu ay jàmm di dóor rek mhm. ñun tam ñuy muñ rek mhm. loolu tant que dañul mhm. du ñu dem fenn noo gisee neuf ans d' exercice au pouvoir du président Macky Sall cinq mars deux mille douze ko jëloon ba cinq mars deux mille vingt et ñu toll ci noo defee boo doon defal benn analyse wala benn bilan ci neuf yi lan lay nekk. xanaa man de xanaa jaaxle man amoon naa yaakaar donte ne moom. man nekkuma ci parteem mosuma nekk sax beneen parti yàlla def na ko mais ba ñu koy euh, fal booba maa nekkoon ambassadeur Canada donc amoon naa recule di xool amoon naa yaakaar ci ne sénégalais bu judd après indépendance war na am lecture historique am fit xool ne mag ñi kat ñu ci bëri ci ñoom ñu fi doon liggéey ci école nationale de la France d'outre-mer la ñu génne maanaam tubaab yi dañ leen jël formaté leen man judd na après indépendance daanaka defet yi jiitu yëpp du sama defet naka laay naka naka laay def nag man léegi pour siggil sagal sama réew lu ma ci góobee gar ko ndax nag nit benn yoon ngay dund doo dund ñaari yoon mm-hmm. yenn yi daf lay war a jaral dee yenn yi dafa la war a jaral dee dagg mbuumu jaamu sa réew comme jaral su suñu kenn ci ñun dee moo tax ñu ñuy def li ñuy def te wékkuñu ko fen senegal tey koom-koom bi fi yàlla indi te yàlla ko fi indi du kenn du pexe kenn dañuy yeew rek ne pétrole am na gaz am na euh, or am na te fu or ama am jama am na ci wetam yooyu yëpp am fii au lieu ñu boole suñu yéene boole sunuy xol boole sunuy pas-pas wàññi wax ji wàññi politique bi. moom mën nañ ko wax. Mm. mën te wax du tabax dara nañu wàññi wax ji toog waxante dëgg maanaam fii am na ñu xam ñu jox leen li ñu xam ñu liggéey ko ñi xamul nañu jàngi suñu mënul jàngi nañu maandu te noppi. Mm-hmm. réew kenn du ko kenn du ko euh, saax-saaxe ci ay kum neex wax sa xalaat am na ay xalaat yoo xam ni kenn du ko jibal jaruta feeñal réew mi toll na foo xam ni waroon nañu def taxaw seetlu depuis wax maa koy wax depuis ay at ma ni leen yàlla jëm nañu fàttali ba sonn benn réew amu fi accident bu mel ni la Joola deux mille et quelques personnes dee newoon nañu dañuy taxaw seetlu defuñu ko ñu continuer di continuer di continuer ba ci fan yi li fi xew nañ taxaw tuuti nañ taxaw tuuti maanaam waxante dëgg jar na tey ku nekkoon sax chef de parti nga ni sama parti tas naa ko pour ñu booloo trois cent partie benn solution politique te parti boo ci gis GIE la ay dóor marto rek la du dara ki ko jiite wóor na ko ne jamais mu nekk président parce que amul sax mënul feesal soraano ça aussi il faut rationalisation bari na trop. mais rationalisation boobu nañu waxante dëgg rek. waay ñëpp xam nañu ne diw jiite tel parti amul fukki nit moom ak jabaram ak yi rakkam ak ay cousin am ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo def seen parti. li tax ñu naan parti sax dafa mel ni nekk fa parce que yéen am ngeen chance boobu fekkee fi ay euh, formation politique yoo xamante ni ay idéologie yu wóor ñoo koy tabax mais daanaka li ñuy gis ni fan yëpp. ci ay ñun bi ñuy bi ñuy xale. Mhm. di militer. man bokk naa ci ñi nga xam ne ni formation ànd jëf la xare bi booba clandestin la benn parti moo fi amoon mooy union progressiste sénégalaise UPS mu nekkaat parti socialiste bi ñu demee ba 74 la euh, euh, euh, président Senghor may autorisation président Wade mu def parti parti de gauche yëpp parti clandestin la ñu woon bi ñu demaat ba bi Abdou Diouf yéegee mu def multipartisme intégral avec sa fameuse phrase jàkk bangoog ku mun a nodd noddal Senghor moom quatre courants la defoon jël ne moom mooy socialiste Abdoulaye Wade ne moom mooy libéral travailliste mu des le le le le le comment dirais-je euh, de gauche bi PA yi jël ko ak bu droite bu feu Boubacar Gueye mhm. alors léegi ñuy dox dox dox ba léegi fi mu nekk nii euh, euh, euh, nañ ma baal baalati ma mais ku amul loo def rek nga nga wut sa ñaar ñetti nit nga dem créer parti te dara pour nga yooxu yëkkati sa loxo ñu gis la suñ la gisee guddi nga dem négocier ñu lay jox ay enveloppe business la business dong la business dong la énergie boobu ñuy def ci politique bi suñ ko defoon ci defar réew mi mhm. te réew mi li koy defar mooy defar jikko yi mm-hmm. éducation éducation effectivement ñun dañuy jaawale éducation ak instruction mm-hmm. instruction école la koy joxe éducation famille moo koy joxe mm-hmm. mais léegi famille yi dañu tas ndax ñàkk ndax nit ñi dañu ñàkk léegi ku nekk noo amee rek baax na mais loolu développé wul réew li ñuy wax développement maanaam yëkkati réew ba nga xam ni ku nekk koomu réew mi daa ci yëg sa bopp lu mu bon bon waroon nañu egg niveau boo xam ne même chômeur ci réew dañ lay fay. Hmm. chômeur yi bëri nañ fi de. moom rek fi moom moo fi ëpp trop. parce que même bëri na ay initiative ay politique yu ñuy teg yàgg nañ ko dégg mais souvent du am suivi ba fan yi rek vraiment chômage ndaw yi bokk na ci li gënoon na xam taal bi ci émeute yi am et tout ça. xam nga li ñu sonal moo di. Hmm. Sénégal dañuy yaakaar ne suñu waxee rek sotti na. suñu waxee xam nga yàlla magie de la parole. Mm-hmm. boo xam ni dafa dafa subjuguer nit ñii dañ suñu waxee foog nañ ne say depuis indépendance ba léegi ñaata politique d' emploi lañ fi def. Mm-hmm. mais politique demploi boo fi gis ñaari euh, mbir lay dem ou bien ñu former ay nit pour dugal leen ci fonction publique te fonction publique Sénégal est ce que xam nga ne. Euh, li mu am ci employé passé wul quatre vingt mille personnes. quatre vingt mille sur seize millions. fonction publique. secteur privé bi am à peu près quatre cent mille emplois à peu près muy quatre cent quatre vingt mille donc cinq cent mille ñoo fi am salaire. fii lii faj gàcce xam nga lan la xam nga fii lan moo fi faj gàcce. Mhm. l' informel. Mhm. l' artisanat. moom moo fi employé quatre millions de personnes. ñu ñooy faj gàcce. te tey ñoom lañ gën a marginalisé. te ja te jànguñu dañu ne jànguñu mais njàng ak xam-xam wuute na. ñoom am nañu xam-xam. peut-être amuñu njàng jàngum tubaab de lay wax. te njàngum tubaab soo seetee bu baax Sénégal yàlla am na lu mu ñu woon ñaar wala ñetti milliardaires yi fi gënoon am xaalis. kenn jàngu ci école. du jóge Kébé. du jilli mbay. du ñoom si lay gisee les diamantaires la du dara. Mhm. <laughs> fii ñi fi jàng éco karawaatu bay bugga a sa bopp rek mhm. mais ñi faj gàcce ci réew mi fayal ay nit ñu jàng ay daan doole lañ mhm. ay baykat lañ ay ay ay ay artisan lañu ay ay ay ay ay ay mhm. ba depuis ba plus récemment euh, Serigne Mbuub CCBM ay ndongo daara la daara la jàng mais léegi day làkk tubaab comme ñëpp parce que njàngum tubaab du ndam Mhm. luy mottali la rek uti la say maamaat kenn xamu ci tubaab <laughs> say maamaat yëpp tabax Sénégal ba ba fii tey xam nga souvent damay wax man leen yéen mhm. nañ seetaat pour bopp bi fii tubaab yi di ñëw di jël si ay nit di yóbbu di def jaam ñi gënoon tal te wér lañ yóbbu waa léegi ñooñu xamaguñu woon tubaab xamuñu pharmacie naka lañ daan fajo ba doon ñu këx yi nga xam ni ñoo jur tey athlète yi gën a mën ci àdduna nañu toogaat suñu toogee xool yooyu détail yooyu danañ xam ne ndekete ñun am nañu médecine sunu bopp am nañu ay garab sunu bopp c'est vrai que léegi ay dóorkat dugg nañ ci mais am nañu médecine am nañu xam-xam yoo xam ni day defar nit mais ñun dañ ko xeeb ñun bi ñuy xale xamoon na amoon na fi ay pas yoo xam ni dañuy mocc fracture nit day damm ñu mocc ko <laughs> mu dellu mais dañ ko xeeb toroxal mag ñooñu ñu dem ak seen xam-xam ñu dem ak seen i xam parce que ñun amuñu woon mbind lépp fii la moom li ñuy wax tradition orale fii nga daan gis nit mu xam jàpp ci boppam li xew ay siècle siècle siècle di ko tari ah, mais léegi ñu topp téléphone yeeg yooyu ba xel yëpp muuru mais yàlla ci wàllum njàng moom ak yaram sax dafa am lu ci lu ci xew man bi ma xëy na duñu ay mag mais mosu ñoo dégg daara sàngam mooy grève tey waaw gis nañ rek li xew université ñu koy wax temple du savoir nekk bërëb boo xamante ni vraiment yàgg na tabax ay nit mu dem ba ay diggante boddiwante ci wàllu waaso mhm. dox si ay diggante ay nit ba ñuy goranteeg jaaseeg defante lu ñaaw lu yàggul dara gis nañ fa tamit lu mel noonu ci ay wàllu parti politique ay militants yuy xeexante jaase ci biir espace universitaire bi ñenn ñi du duut baaraam la politisation de l' espace universitaire mhm. Mhm. waaye boo boddiwante ci wàllu xeet boobu boo ko gisee tey ci lu mel ni université boo xamante ni ki nga ko tuddee du ko tuuti mhm. loolu lan la lay def xanaa metti ak euh, euh, wone ne loolu euh, du sunu yoon gis nga université bii c'était prévu pour moins de dix mille personnes léegi ëpp na quatre-vingt mille personnes yu fa nekk ñun déjà bi ñu nekkee dans les années soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit ay première année de droit amphi cinq mille un ay mille cinq cent deux mille personnes dañ fa daan daje ñëpp déjà ëppoon na ngay former ay ay nitu droit rek ay waxkat rek moo tax avocat yu bëri fi wax rek li am ba wóor moo di ne ñun dañu foog ne xam ñi am bac yëpp dañu war dem université du noonu du université du moom rek mooy buntu la ci bunt yi mais waroon nañu am yeneen système de formation yoo xam ni dafay jox nit ñi métier ak xarala fekk du dem université nga dem université juróomi at am nañu fa nekk fukki at mënaguñu génn ak licence wala maitrise nga génn ba pare mënoo. sax nekk caméraman su ñu joxee caméra bi nii da nga koy xool mënoo ci dara jëloon la depuis la BFM yóbbu la nga jàngi métier caméraman moo ko moo ëpp moo ëpp njëriñ fukki at te soo paree fukki at yi ba am sa maîtrise sa da ngay dellu sa kër baay di bind ay CV di yónnee rek di bind ay CV di yónnee rek je demande nangam nangam je vous parce que mënuloo sa bopp dara. fa ma nekkoon Canada gis naa fa modèle boo xam ne bii ñu ngi koy tuddee les community college euh, euh, ñooñu collège yooyu duñ la laaj ndax mën nga euh, am nga bac walla am nga leneen déedéet dañ lay laaj ndax dégg nga li ñuy wax ak mbind tuuti soo ko mënee en deux ans ñu jox la métier ñii génn ci école yooyu. ñoom ñooy monter avion yi avion yi nga xam ni euh, un des fabricants d' bi gën a mag ci àdduna bombardier c' est canadien ñi koy monter ñaari at lañ jàng ñooy monter avion ba mu jeex xam-xam ak njàng dafa wuute <laughs> yooyu ñun mais ñun fii da ngay jàng ba pare bind CV fukki page jaar naa nangam def naa nangam wax naa nangam bind naa nangam mais loolu lii wees kenn laaju la ko lan nga mën lii fi nekk nii lan nga mën moo tax système anglo-saxon ak système francophone bi wuute. système francophone da ngay tagg sa bopp. système anglophone dañuy jël këyit bi teg fële ne la defal lan nga mën. moo tax soo ko seetee bu baax Afrique réew yi gën a dox pays francophone amu ci. yi réew yi gën a dox. amuñu fa dëgg la loolu ay ay ay fee la. Mm-hmm. soo taxawoon tey Kenya maa nga taxaw Ghana maa nga taxaw Nigéria maa nga taxaw pays yooyu. da ngay ñun nag dañu yaakaar ne tubaab tubaab lu mooy ndam te développement ak tubaab tubaab lu du benn la preuve Chine a ngi développé Chine a ngi développé mais Chine chinois yi chinois la ñu làkk Japon japonais la ñuy làkk. ak seen identité culturelle. nga jël nag langue internationale bi c'est un outil. Mm-hmm. de communication. effectivement waaw mais ñun fii dañ ko def. une fin en soi. dem na ko sax booboo boo làkkee pulaar ci yenn institution yi wala wala euh, wolof wala séeréer sax daanaka dañ lay xaw a ñàkkal fayda. mos naa nekk bi ma nekk ci assemblée bi ah, parce que tamit loolu war nañ ci jug taxaw mos naa benn bés dama ree ma wax ko ñi ma àndaloon fekk ñu ngi dem bi ci montagne yi journée culturelle Jalonke ma ne sama collaborateur man defee tey am naa gàcce ma ne ko mu ne ko ma ne ko man ak sous préfet bi yëpp français la ñu làkk te wóor nañu ni ñii ñëpp kenn déggu ci français. mu ne ma ah ma ne ko ah lan ko ñun dañu torox mhm. naka nga mën a nekkee ak sa peuple nga leen di làkk une langue étrangère mhm. lii doon sama ndam mooy ma làkk am na ci ñoom ñu dégg pulaar ma làkk mhm. pulaar mbaam ma làkk wolof ñu may traduire ci beneen langue mais nga làkk tubaab ba pare ñu tàccu tëb kii de nga dem foofu ñun tey jii nii même message à la nation yi président di def waru ko def ci tubaab mais ñu ñoo tooñ suñu bopp parce que ñun ñoo nangu ñu bind ci suñu constitution que la langue française est la langue officielle loolu bind naa ko bind naa ko ne loolu dañ ko war a dindi dañu war a ne toutes les langues maternelles du Sénégal sont les langues officielles le français est la langue de communication internationale et la langue de l'administration s'ils ba foofu mun nañ d' accord. dina mën a saafara mais da mais da ngay sargal sa bopp. sagal sa bopp. <laughs> ngay sagal sa bopp da ngay jël li nga moom am teg ko ci kaw. ba pare yeneen yi nga koy jëriñoo. bokkoon na ci li ma bindoon aussi ci ci booba bi ñu bindee ci constitution bi le Sénégal est un pays laïque ma ne ko du dëgg parce que ñun fii ñaari diine moo fi fës jullit ak catholique ñaar ñooñu ñëpp dañ gëm kon bu leen tuddee laïque ne le Sénégal est un pays de croyants le Sénégal est un pays de croyants ndagam Amérique moo mën a bind ci devise am in God we trust. astamaak yow mi nga xam ni amoo dara ku dul yàlla. ñun daal dafa mel ni dañuy làmbaatu rek. nekkuñu ci lu baax. te c'est plus profond mooy li ma la wax moo ma ne euh, yi fi xew. Mm-hmm. c'est des épiphénomènes. effectivement. mais, mais problème bi c'est structurel. góom c'est structurel. il faut ñu toog nag ñu waxante dëgg. Mm-hmm. te loolu dafa jotaan parce que euh, sama compagnie ñi nga xam ni on est dans la dernière ligne droite mm-hmm. amatuñu lu ñuy ragal amatuñu lu ñuy tiit mm-hmm. parce que wóor na la ni fi mu nekk nii <laughs> ligne droite nga nekk mm-hmm. donc soo fi xarwul moom c'est pas la peine yéen jeunes yi am ngeen encore chance <laughs> dem ba ci kanam mais ñun loo fi loo fiy tiit def waxal li nga war a wax def li nga war a def de toute façon da ngay dem mais suñ fekkente ne dañuy nekk di euh, euh, raayante ay ndigg président du Sénégal toog wax en français pendant vingt minutes après ñu koy traduire euh, par un journaliste ou bien moom sax mu ñëwaat di traduire mais loolu gàcce la un exemple Canada discours booy def comme ñoom français ak canadien la ak anglais lañu mm. discours bu premier ministre di def daf koy def moitié français moitié anglais parce que loolu lañ nàmp ñoom mm. mais ñun kon suñu chef de l'État war na mun a wax wolof laaj sax ñu traduire ko quelques phrases en séeréer moom mii mën na séeréer kii fi nekk nii mën na séeréer. dégg na pulaar tamit. dégg na pulaar tamit c'était sa chance. Mm-hmm. c'est le président qui mm-hmm. parle. Mm-hmm. au moins trois langues. nationales. le wolof le séeréer et le pulaar. munoon na de temps en temps mu cabaxal ci benn phrase séeréer xam nga ne kon waa Sine yëpp dañuy kontaan. de en temps mu jël ñu bindal ko benn phrase jola mu mémoriser ko mu wax ko. loolu lañ noonu la ñuy euh, euh, joxe ñi ñi sentiment national mm-hmm. pour dellu ci li nga wax université dégg naa effectivement mm-hmm. am na ay euh, mbir yoo xam ni mu ngi commencé ñëw sur des questions ethniques ak affaire yooyu entre Joola et Séeréer loolu dafa doy waar gis nga entre Joola et Séeréer entre Séeréer ak Tukulóor dafa am comme pacte moral ancestral mm-hmm. pacte moral ancestral ñi koy def xamuñu seen bopp parce que suñu xamoon seen bopp dana danañu xam ne tellement pacte moral entre séeréer et joola dafa fort sous-préfet bu ñu mos a affecté Casamance séeréer ngay doon. ah waaw waaw dañ demoon ba seetlu ne su préfet séeréer kenn du ko attaqué soo nekkee wolof wala tukulóor sax mën nga am problème ak joolaa yi mais séeréer ak joolaa dafa mos am pacte ancestral. Hmm. démb la soog a tey lu yàgg la cosaan la man xaar la mais sama pacte moral ak séeréer yi dama dama ko gëm te di ko dund di ko dundal loolu fa la réew mi waroon di doxe waroon nañu passé détails yi nga xam ni euh, Sénégal yàlla musal na ko xam nga lu tax am na lu ñu yàlla may dañ koy xeeb mais am na solo moo di diine lislaam ak tarixa yi ni muy doxee xam nga da gis tarixa fekk fa xeet yëpp loolu féete leen kaw diine ji féete kaw deret ji lu am loolu la ñu Sénégal lañu yàlla mayoon ñu koy dundal di ko dundal ba léegi nii léegi apprenti sorcier yi nag xam nga la théorie du diviser pour régner loolu moo yàgg am ci àdduna ci ci ci teesu ci teesu euh, Machiavel yi la bokk soo bëggee yilif réew danga leen di tas féewale leen soo leen féewalee dañuy nasax du am doole kóolute ñàkk ci seen diggante su loolu amee mën nga toog ci kaw yilif ñëpp yooyu dañ ko war a moytu université temple du savoir waroon nañu xam jàng histoire xam ñooy ñan mais nga dem ba université di xulo ay waaso jàngo jàngoo soo ko delloo ci diine sunu borom dafa ne ci alquran waqtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yàlla nee na nañu mooy ci buumu yàlla bu leen teqalikoo soo leen teqalikoo rek na sax yàlla nee na itam kenn gënul kenn séeréer gënul joolaa tukulóor gënul wolof wolof gënul tubaab inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki gën a gëm yàlla amul jaam amul tëgg amul griyo yooyu yëpp amul yàlla nee na amul yéen a ko créé pour nootante ci seen biir mais man du loolu laa wax li ma wax mooy ki gën a gëm ci yéen moom laa gën a bëgg moom a gën a jege su nekkee jaamu portugais aussi bu tuub moo leen gën mais ñu toll ci jamono boo xam ni suñu waxante xam-xam lépp <laughs> ku nekk sa bakkan nga wax dañoo perte tellement suñuy ay repère xamuñu fu ñuy teg suñu tànk bakkan rek gëmutuñu référence ak yooyu yëpp te vraiment richesse la bu ñu yàlla may fi ñuy daanelee waxtaan bi rek mooy wàllum liberté ak démocratie hmm. Sénégal bu ñu defee classement génn na ci fukki réew yi nga xamante ni jàpp nañ ni am nañ démocratie ak liberté bu wóor euh, loolu moom ndax du classement tubaab la rek tubaab bi ñooy toog fële yow seen i classement di classé nii loolu yëpp naxante la euh, gis nga ñun nañu bàyyi yooyu nañu bàyyi di xool suñu bopp ci seetu bi tubaab bi teg nañu xoolante ci suñ biir bàyyi leen ñoom ñun ñu xoolante ci suñ biir seet est-ce que nii ñu jaar est-ce que nii la mais du nii réew mi am na koom-koom mm-hmm. réew mi am na xam-xam mm-hmm. mais dañu bàyyi saay-saay yi ak truand yi ah moo moom affaire yi mm-hmm. à tous les niveaux nañu xoolante et puis ñuy vivre monde bu artificiel. Mm-hmm. artificiel. artificiel moo di ñun ñëpp ñu ngi nii dànqaloon Ndakaaru. Mm-hmm. alors que Sénégal yaatu na. Sénégal yaatu na. aménagement du territoire des pôles régionaux nit ñi mën a dund dund bu neex hmm. Kaolack mën ko dund Podor hmm. mën ko dund euh, Ourossogui mën ko dund euh, Sédhiou mën ko dund voilà mais su fekkente ni ñëpp yaakaar nañ ñi ñëw ndakaar mooy tax nga am dara hmm. ñu tegloo nga xam ne kii ñëwoon na Dakar mën a progresser mbokk yi ñëw tegu ci kawam mu appauvrir ñëpp pauvre ndoo benn yoon <laughs> te ñun ji tey xoola climat Sénégal bi xoola climat bi tey soo demeen Canada nit ñaa ngi bëgg a dee ak liw yàlla may ñu climat boo xam ni c'est rare dans le monde ñu war ko mën a valoriser pour def une destination de tourisme balnéaire mais de haut niveau pas le tourisme des petits babacool là non un tourisme de haut niveau comme l'île Maurice nga xam ni dafay indi des devises mais pas des pauvres des pauvres blaireaux là qui viennent ici se balader amuñu dara te duñ fi dépenser dara lépp la ñuy fay au départ dañ koy fay seen tour opérateur ñëw fii dem sa hôtel lekk sa kii duggaat seen avion dem sa yoon du ñu dugg ci dëkk bi duñ fi bàyyi xaalis ci sunu wàllu caada développement des industries et produits culturels xoolal maa ngi déglu avec émotion ma rendre hommage Thione Seck Thione Seck li mu produire ci musique il aurait dû être multimilliardaire mm-hmm. moom yooyu sunduur mais ana droit d'auteur mm-hmm. parce que teguñu yëf ci yoon dañuy bàyyi pirate yi pirate mooy nga nga teg sa euh, boulangerie mm-hmm. defar sa mburu benn waaye dugg jël miche dem loolu mooy c'est aussi simple c'est du vol te pourtant dañu bàyyi nit ñi Ghana benn doo xam nga lu tax doo dégg benn musicien ghanéen international parce que marché localu Ghana doy na ko duñ tourné. Mhm. duñ dem fenn. Mhm. ku fa tirer un million tu vends un million. Mhm. fii Youssou Ndour il peut pas vendre cent mille. <laughs> fii au Sénégal xanaa li muy am à l'international mais fii day def benn suba nga dem fekk benn waay bu toog marché di dupliquer ñàkku jaambur. industrie culturelle du loolu rek cinéma Sénégal les plus grands cinéastes africains sont sénégalais. de Ousmane Sembène Djibril Diop Mambéty Johnson mun naa la limal ñaata ñoom Moussa Sène Absa la nouvelle génération ak seeni rak ñoom euh, Alain Gomis mhm. ñooñu industrie cinématographique war na fi am mais amatuñu sax benn salle de cinéma ñun bi ñuy gone chaque samedi chaque dimanche nga dem cinéma amu fi théâtre Sorano kenn defatu fa théâtre art euh, dramatique bi fi amoon les grands acteurs comme Doura Mané dañ fi daan jouer Douta Seck la tragédie du roi Christophe hmm. c'est une fortune hmm. mais yëpp ñu ñu ngi koy seetaan muy dem hmm. énergie boobu culturelle boobu nekk ci réew mi su amul fu mu exprimer wu day dem ci violence exactement loolu mooy la réalité c'est-à-dire que nit ñi dañu gëlëm xamuñu fu ñu tourner suñ demee nag ba mënatuñ ko supporter ñu exploser di masawwaat waa réewum ci li fi xew ci fan yële mhm. Mhm. ñu ñëpp a rus mhm. ñu ñëpp a parce que waruñu woon seetaan ba sénégalais jël fetel tiré ci moroomam sénégalais soo amee doole kay dama jaay ko yeneen réew yi ñuy attaqué mais doo wëlbati sa ngànnaay di ko dóor say doomu réew loolu ñaaw na ñaawlu nañ ko te itam suñ borom dana ci def saafara moom incha allah ñu koy yaakaar mbokk yi ñu amoon mbégte dalal euh, ancien ministre de la culture euh, Ahmed euh, Tidiane woon moom lañ doon dalal tey si kër gi ngir waxtaan ak moom tolluwaayu réew mi mu nekk débat bu riche boo xamante ni waxtaan bu riche la ñun doyaluñu waaye comme waxtu da koo tënk dañ koy bàyyi rek bu ko defee beneen yoon incha allah ñu waajal ko ci beneen jotaay boo xam ne daañ fi dikkaat ak moom pour gën a mun a càmbar yëf yi ndax ni mu ko waxee Sénégal fu mu toll nii daal daanaka dafa soxla ñu ñu tëggaat ko daal di koy daal di koy defaraat. am yeneen façon yoo xamante ne ci la ñuy doxalee réew mi ndax comme ni mu ko waxee fi mu ne nii daal daanaka lépp a jaxasoo kenn xamatul sa sa moroom kenn xàmmeetul fa nga war a taxaw kenn xàmmeetul naka ngay jëflante ci sa biir ak say ah, ñi nga dëkkandool bu ko defee del loolu nag nekk problème boo xamante ni vraiment war nañ ko mun a résoudre ñu di ko doon am nag euh, mbégte vraiment dalal ko ci kër gi di ko jaajëfal monsieur le ministre kontaan nañu trop ci teewaay bi. ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci te euh, invité bi ngeen ñu invité. ni nga ko waxee gàtt na lool mm-hmm. waxtaan ak yow neex na trop. <laughs> <laughs> yal nañu yàlla may beneen jataay. amiin incha allah amiin merci beaucoup. ñu leen di jox daje euh, ci beneen numéro bu ganu Equivox su jaa ngeen